maire yi nag da di fal ñu nekk ay maire mais itam moyens yi dafay des dëgg dëgg dëgg dëgg des fois moyens yi parce que lii loolu ngay gis budget bi ñuy am li ci ëpp ci fonctionnement rek lay lay jëm fonctionnement euh, perte sa personnel nga nga fay leen boo fayee sa personnel euh, salaire la nga cay dese vraiment taxu ko am solo pour nga jël engagé ay liggéey ay travaux publics yoo xam ni mel ni defar tali Euh, wala je ne sais pas wala euh, curé. mais Moussa canalisation yooyu at ah, yow nañu budget boobu. waaw mais Moussa il faut nga xam ni maire non maire maire moom mooy def démarche loolu laa la wax noonu xam nga maire doo ah, toog rek. wut ay partenaires. waaw loolu laa la wax noonu mais mais mais maire loolu la. maire yaay def démarche xam nga maire du question que da ngay toog rek. maire du da ngay toog rek ñu jox la euh, budget rek nga yem foofu noonu mais mair da ngaa war a jug di def ay démarches di wut partenariat loolu loolu moo tax voilà est-ce que war nañu xoolaat statut maire ñu fexee ba nga xam ni maire bi euh, au lieu que euh, assiette assiette fiscale bi muy am au lieu ñu koy yóbbu trésor public ñu def trésor trésor municipal ba nga xam ne xaalis ba foofu lay ne lu mu soxla mu jël faj waaye loo tam beneen problème xaalis ba foofu lay ne mais itam nga jël lépp yóbbu fale lu ñu dajalee ci ay ay ay ay taxe juuti lépp deux poids deux mesures daal tant ko. maire bi moo nekk APR ñu defal ko privilège. politique ni ñuy politique mais loolu moo am. loolu am kay loolu moo am ah, loolu moom fépp loolu xam nañ loolu moom sànq loolu mu fi am moom ay maire maire boo nekkul ci pouvoir bi oui doo am privilège ñu la jox benn doole yenn projet yi pour defar sa gox duñ la sax jàppale mais gis nañu xalifa Sall bi mu fi nekkee maire Dakar bi mu amee problème am ak ak ak le régime gis nañ après lu bëri dañ ko bloqué gisoo sax luñ ko wax boo nekkee ci ñun ñu ñu débloqué ah, yëpp boo nekkul ci ñun ñu kii loolu ñëpp a koy dund kon Sénégal li ñuy politique moo baax su fekkee dafa am euh, keneen ku dugg rek euh, mën nañu ko. mën koo laaj mu ne la politique de la cité. waaye nag gestion de la cité boobu ci wax la yem. ana ASC yi pourtant yomb na gox boo gis am na ay ASC pour pourquoi. mobiliser la du problème mais moyen mooy moyen yi. jël ko asalaamaaleykum mbokk allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. bi mën nañu xam tuur bi. mën nga ñu wax tuur bi tur bi. tur bi. waaw. wala nga koy lekk waaw Pape Diop. waaw yàgg dëkk ca. Cambérène. Ah, d'accord waaw. situation boobu nga xam ni fi mu toll nii moom ngeen di jànkoonteel. ci problème waaw ma ni. situation bi ngeen di jànkoonteel ci jamono jii. ci problème assainissement ci seen gox. Ah, ah. lan moo ci seen responsabilité yéen askan wi ak responsabilité maire bi. Ah, waaw mooy sama laaj. waaw laaj bi maa maa maa ngi leen di gërëm d'abord di lu seen émission. jërëjëf. Euh, di leen encourager bu baax. bon ñun bi ñuy dund doy na waar trop trop trop trop metti na trop métti na. parce que euh, ñun dañu am benn euh, terrain d'abord bu nekk sax ci gox ba nga xam ne terrain football la woon. xale yi daan ci pratiquer mais léegi kenn pratiquer gu ci football bon li ci ëpp dañ fay tuur ay grava ak ci mbalit ak ay yu dee yu kenn xamul bon maire bi aussi vraiment sollicité nañ ko ba sonn pour mu li ñu ci ah. gisaguñ leen ci dégguñ leen te situation bi doy na waar doy waar boo xamante ni fi mu nekk ni ñun bu tawee dañuy sonn xam nga amuñu ay évacuation d'eau amuñu dara xam nga donc eaux euh, usées yu aussi tamit dafa commencé bari ba nit ñi dañuy am problème muy weñ muy yoo xam nga euh, même pour nga mën a noy air pur ak géej gi sax ça pose problème situation yi daal vraiment mu ngi posé wu foofu au niveau de Cambérène quartier Mbane euh, terrain bi ñuy wax terrain jamono loolu daal métit la fa waaw léegi ngir saafara ko mm-hmm. yow ban solution nga gis est-ce que mairie bi kese daf ci lott am foog état bi jàpp ci am déet. waaw waaw xam nga xam nga xam nga pour pour saafara ko ñun ñu fa dëkk ñun ñu fa dëkk d'abord ba pare mais mair bi aussi il faut mu jàppale ñu fa dëkk aussi waaw maanaam dépôt d'ordure tout ça posé wu na problème. Mm-hmm. allo. waaw mais mais loolu la ñuy déglu mën naa recruter fa ay ndaw yoo xam dañuy taxaw su ngeen su ngeen seetalee gox boobu. terrain bi ba setal setal ko ñu jël fa ñoo xam ni danañ taxaw di surveiller foofu ku ñu ki ñu. Ah, am par su fekkee def nañ loolu ba pare. Hmm. il faut mu am TV maire bi dimbali jigéen ñi nekk ca quartier ba ba nga xamante ne bu ñu bëggee def tuur mbalit wala ñu bëgg a tuuri seen ndox am ñu tuuri ndox bu ñu bëggee eh, tuuri mbalit am fu ñu tuuri mbalit oto bi di ñëw régulièrement hmm. après nag jeunes ñi daal di taxaw volontairement hmm. nag di euh, surveiller di veyewu ci loolu maire bi jàppale leen man de xalaat boobu laa am amoon. espèce brigade de l' environnement. Hmm. espèce brigade bri benn brigade de l' environnement. ñu taxaw ko. wax la am na lu ko jiitu aussi tam. balaa brigade de l' bi aussi. Hmm. waaw. Hmm. voilà mais mais sëñ bi. waaw yow léegi nii dama dégg nga ne maire bi euh, waaw ñoom jàppalewuñu leen mais maire moom léegi nii nii nii nii am na ko ko jot moom nee na amul problème ubbi na ay buntam boo leen ñëwee rek mu jàppale leen. woote naa fa mais lañ ma wax du ma ko def ba ilaa yow mi parce que taxawal nga xool maanaam sa dëkkandoo bu fa def naka su dul noonu nga signalé ko ñu yóbbu ko ci yoon xam nga loolu du solution te nit ñu aussi boo jëlee benn terrain bu tool noonu nga toj ko di fa tuur ay grava ay camion grava ñooy ñëw di ko fa tuur xam nga poussière bi di di ventiler wu ñëpp di ko noyyi ñuy yëpp grava yi di sotti di dem ak ñëw xamuloo sax ci yan condition lay demee ak yan condition la fay ñëwee léegi jigéen ñi ñuy di tuuri mbalit ku am sa lu dee ñëw sànni ko fa ku am sa lu yàqu ñëw sànni ko fa man man man vraiment loolu daf may jaaxal xam nga. daf may jaaxal demoon sëñ bi kañ ci moom. non maa dama woo agent benn agent ci maire bi mais ñoom loolu lañ ma wax ne ma ni ni naa xool kenn koo xamante ni vraiment xam nga gis naa mu def naka su dul noonu ñu signalé ko ñu yóbbu ko ci yoon mais xam nga ko dëkkandoo mën nga waxanteeg moom wala nga defanteeg moom noo xamante ne neneen lu du yoon ci cadre boobu. Mm-hmm. d' accord kon yéen fi mu ah. nekk nii léegi moom comme moom nee na boo leen ñëwee dina si jàpp yéen kay bu leen xaar fi mu nekk nii boo raccroché kay àndal ak sa délégation rek ngeen jéem a dem ba xam. Ah, waaw wax la rek mais c'est pas la première fois. <laughs> Ah, nga la parce na ko ci télé ñëpp di kay. xanaa kay loolu kay kay moom wax na ko wax na ko moom peut am na ku mu yóbbante. gis nga gis nga laata lii jigéen jigéen ñi nañu dem xam nga ba léegi amul amul amul suite. Hmm. ñun ñii aussi tamit suñu demee du am suite suite bi kañ mooy waa quartier bi ñu volontaire jéem a xool mais amuñu doole amuñu ku ñu dimbali pour ñu évacuer mbalit ma. waaw te on est en danger ñun on est en danger. waaw te waaw léegi yéen mënoo leen cotiser bien que c'est pas waaw vas-y donc ma la ma ne on est à onze cas vu la situation actuelle comme tey jii nii il est temps que ñu jóg moom waroo xaar sax ñuy yëg ci ba fii. xam nga ba ñu amee deux cas trois cas rek la waroon ne ah attends ni ñu jub def lii ak lii ak lii bon donc maladie bi ku ne xam ne ni problème d'hygiène la donc te foofu na mu mel doy na waar doy na waar su ngeen bëggee nag ngeen dem xool mais doy na waar. léegi onze cas de lan lay wax ni onze cas de. communautaire ngay wax. Hmm? mais par rapport ak loolu noonu parce que man gis naa ne que euh, euh, mairie yi ñu ngi ci am na ñuy taxaw maa ngi gis gars yi ñuy commencé désinfecté di commencé di di di mairie Cambérène bi deful loolu lépp. ah man wax dëgg yàlla. asiwul ci fi ma niveau bi ma lay wax noonu foofu noonu gisuma ko man maay futteeku parfois man personnellement futteeku naa nettoyé benn partie mais en deux jours mu mel ni kenn mosu ko lal. xamuñu kat fuñ ko def. waaw. léegi cent franc cent franc yi nag te ngeen koo def comme nee na ngeen cotiser ngeen ngeen est-ce que doo jéem a xool nga parce que comme ça gox la aussi ni nga futteekoo noonu nga dem dugg ci kër yi gars yi ku ne am loo joxe ngeen def ngeen jéem ko defal seen bopp comme maire bi moom waxagul dara ah waaw man mooy xëy moom loolu dëgg la neexul moom dëgg yàlla neexul. ngay bi ci mm. mais kon sëñ bi balaa ngay coupé comme ni la déggee ça veut dire que kon mairie bi yéen amalu leen fa benn njariñ foofu noonu. non kenn xam nga damay wax te taxaw ci sama bàmmeel xam ne li may wax nii xam nga. dëgg li ci man sama tëraay bàmmeel lay wax mais loolu moom vraiment gisuma benn réaction mairie bi par rapport à la situation actuelle bu ñu def foofu noonu. waaye xam nga la mooy problème bi sëñ bi. Mhm. c'est que askan bi aussi tamit comme li ñu koy waxee rek il faut ñu gën a nañ ma baal ci kàddu bi ñun ñëpp ñu gën a am mhm. fula. Mhm. parce que tamit euh, boo leen yéen boo leen leen soxlaa duñ leen faale. ñoom buñ leen soxlaa ngeen daw topp ak waxuma yow de. mais ngeen dem topp ci ginnaaw wax a wax a wax a a wax. loolu tamit mhm. aussi il faut mu jeex fi Sénégal tam que les jeunes soient beaucoup plus responsables que ça. waaw maintenant les jeunes doguma la foofu soxna si mais les jeunes commencent maintenant à à éveiller par rapport à la situation boobu parce que actuellement nii xale yooyu jóg taxaw nii pour Cambérène mën a am hygiène ak environnement bi dellu na mu meloon avant xam nga euh, c'est parce que xam nañu le fond du problèm parce que c'est des c'est des xam ne bu ñu la soxlaa il xam nga pour xëcc la ba nga ñëw mais après suñu paree ci yow pare nañ ci yow donc loolu sànni la waaw am na loo xam ne doo ci xaar état doo ci xaar dara lu lay kutee ko defar mhm. ñoom ñoo waroon sensibiliser nit ñi di dugg ci kër yi porte à porte di waxtaan ak nit ñi di leen sensibiliser xam nga fekke xool yan condition la ñu mën a teg yi nga xamante ni ñu mën a nit ñi dinañu mën a évacuer seeni mbalit Cambérène quartier la boo xam ne amul assainissement amul amul fu ndox jaar bu tawee ñëppay sonn caabi xam nga problème yooyu dafa posé te ñoom ñoo la ko gën a xam. metti na de metti na trop vraiment metti na bon ñu ngi leen di encourager sëñ bi bu bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, ñun am nañ yaakaar comme ni mu ko waxee à travers Touba TV que ni ko boo leen ñëwee mm-hmm. dina ko saafara ñu jàpp ne rek wax dëgg yàlla dinañ ñu moom dinañ topp di woote ba xam ndax mbir mi fu mu mujjee daal ba xam. ah waaw ngi leen di remercier maa ngi remercier itam euh, les nga xamante ne taxaw nañu tey pour Cambérène. Euh, dem ci image bu njëkk maanaam fekk parce que foofu appel bu amee xew-xew am. waaw ah. benn dañ leen daan dalal oto dëgg yàlla war naa mën a mën a mën a mën a set lool nag. te taaru lool parce que loolu la loolu la loolu lañ prôné wax dëgg yàlla. ah en tout cas du wax waaw ah. très bien ab ah, du wax nag foo faut nga jëf ko wax dëgg yàlla nag. waaw il jëf il yi kër kër bu ne. Mm-hmm. waxtaan ak nit ñi xamal leen. sensibiliser wut ay solution xool au niveau des SICAP xool yeneen quartier yi ñu ñu organiser woo ba am yenn hygiène de vie nga xamante ne ku am sa këy doo ko ñeme sànni da nga dem ba ci ci ci nga def ko fa xam nga yëpp tam c'est leur c'est leur c'est ñoom ñoo war a dox loolu ñoom ñoo war a lijjanti loolu ñu ngi fekk ci loolu mais maa ngi maa ngi rafetlu émission bi gërëm xale yi. jërëjëf waay gërëm ñu aussi tam merci beaucoup ñu ngi lay bu baax a baax bonne journée jërëjëf. ñu koy jaajëfal bu Ibrahima dafa am loo ci bëgg a ah, a sànni rek. aram li nga wax lu am solo la. Mhm. am il faut nit ñi jeunes yi surtout ñu am fulla ci loolu noonu. Mhm. xam nga discours politique lañ war bàyyi. te maire li valable ci président wala keneen ak keneen mun na bañ a valable ci moom parce que maire da nga war a am une approche euh, envers.